le président Ousmane Sonko il est là téléphone mi ngi noonu mi ngi mi ngi noonu mi ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Président. Président. Il va rencontrer, il va rencontrer ces bonnes dames. Il va rencontrer ces bonnes dames. Il président Ousmane Sonko. président président mi ngi nii président président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko. La foule en le président ngi le président Ousmane Sonko le président le président ¡Chocolate! le président Ousmane Sonko. waaw waaw. waaw waaw. Ziguinchor. le président Ousmane Sonko. Ziguinchor on progresse. Ibrahima ndax mos nga gis lii. lii mës na am. le champ de bataille derrière. le champ de bataille est devenu cette grande avenue de joie et de liesse populaire. la grande avenue de Néma déroule le tapis rouge au milieu des gravats les barricades levées le président Ousmane Sonko en promenade parmi ses siens. mi ngi noonu mi président Ousmane Sonko. le feu. derrière le feu, il y a le chef de bataille avec les forces de sécurité. Le feu de la dignité. Le quartier du président Ousmane Sonko. Mais maintenant, vous remarquer, à la place du champ de bataille, il y a une liesse populaire. avec le président Ousmane Sonko qui est en train de revoir cette masse, cette jeunesse qui le protège jour et nuit. Cette masse que j'appelle la masse silencieuse. La masse de la dignité. Le président Ousmane Sonko ak xale yi commune bu Ziguinchor président Ousmane ñi waxoon ni président nekku fi président ngi nii génn saafonte le drapeau vert jaune rouge frappé de l'étoile au milieu mooy flotté du mësa sori président Ousmane Sonko ñoo ngi Ziguinchor ñoo ngi la ville de la dignité ñoo ngi la capitale de la résistance Bourok City Bourok City xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu ñii ñoom ñoo géré woon sécurité président Ousmane Sonko ñi ngi continuer di ko géré yéen ngi seen xale yële nekk ci ginnaaw taxaw fixe nekk ci parce que c'est des positions a ne pas laisser xale yaa ngi noonu taxaw ci dëgër malgré seen jàmbarte malgré li seen xol ñoo ngi noonu président Ousmane Sonko ngi noonu mi ngi noonu le véhicule marche en reculant le véhicule marche en reculant mi ngi noonu le maire de yaa ngi way bul naa la bul ma jooyloo Burok City président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Ziguinchor ne maa ngi nii le président Ousmane Sonko. mi ngi noonu la réaction des forces de l'ordre xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi booy yi seen barricade yi seen bakkan lañ ci teg booy yi seen bakkan lañ ci teg président mi ngi noonu président Ousmane Sonko xale yi yëkkati ñu barricade yi ngi noonu gis ngeen yaa ngi noonu barricade yaa ngi noonu c'est yi nee nañ président fii fi jàll de Ziguinchor a ngi ni Ziguinchor a ngi nii président Ousmane Sonko boo yaa ngi noonu tenir les barricades boo yaa ngi noonu tenir seen ay position boo yi nee nañ président nañ la lool waaye fii doo fi jàll mi ngi noonu président ngi noonu boo yi ñu ngi tenir fi ngeen di seen noonu mooy hôpital régional bi FDS yi dellu nañ ginnaaw bu baax a baax président Ousmane Sonko. mais combattant yi naan ñu des fële. mi ngi noonu yéen a ngi dégg ñi ngi naan combattant yi naan ñu des ci ginnaaw. mi ngi noonu Ziguinchor. xale yi Ziguinchor yaa ngi nii booy yaa ngi nii booy yaa ngi nii le peuple de Ziguinchor la revue des troupes président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko booy yi nee nañ na oto bi dellu booy yi ils tiennent à protéger le président nee nañ ko dellul yéen a ngi koy gis noonu ñu ngi bumax oto bi ñu ngi bumax bi le le véhicule marche en reculant boo yaa ngi ni détermination détermination mbëggeel a ngi nii ngi nii xale yi jigéen coor yaa ngi nii nee nañ président dañoo barricadé bàyyil ñu delloo la xale yaa ngi ni il tient tellement au président Ousmane Sonko yéen a ngi dégg dégg leen ambiance bi. mi ngi noonu mi ngi noonu ça c'est les remparts de Ziguinchor ñoo ngi noonu les marcheurs de nuit de Ziguinchor xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ngi noonu mi ngi noonu président dafa génnoon président dafa génnoon pour saafonteeg xale yi nga xamante ne ay fan a ngi fi xale yaa ngi taxaw di jàmbaarloo gaay président ngi noonu président ngi noonu président ngi noonu la marche victorieuse xale yaa ngi noonu xale ci kaw barricade xale yaa ngi noonu mi seet si xale yi président Ousmane Sonko président président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko. la liesse populaire, la joie de ces jeunes qui toppent président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko mi ngi noonu président dugg na ngi noonu mi ngi noonu comme je vous ai dit tout à l'heure da di tolluwaay boo xamante ne président Ousmane Sonko moo doon doxantu pour revoir un peu le dispositif li booy demee itam sargal leen euh, nuyonte ak ñoom ces bonne dames yi fi nekk depuis ay semaines depuis ay jours ñu ngi fi président Ousmane Sonko pour euh, doxantu tuuti saafonte ak ñoom échanger un peu ak ñoom on va vous donner une petite exclusivité parce que président président Ousmane Sonko yéen ñi nekk ci internet bi xam leen ni président nee na ma man mi Ibrahima Diallo man mi nekkal leen fi président nee naa leen wax ne kontaan na bég na ci yéen gis na engagement bi gis na concentration bi président remercie tous les patriotes du Sénégal d'ici et d'ailleurs nee na kontaan na bu baax a baax ci yéen soldats yi fu ngeen mënti nekk président kontaan na ci yéen président Ousmane Sonko nee na leen président Ousmane Sonko nee na leen ñu ngi leen di xool ñu ngi leen di gis seen liggéey am na solo loolu la ma président wax àggale naa leen ko si quelque temps dinañ ci dellu si waat waaye mi ngi nii le président l'espoir du peuple l'espoir de l'Afrique mi ngi noonu doon seet si juste nuyonte ak femmes yi nga xamante ne nekk nañ fii ay jours yi jours à ses côtés fii nii guddi ak bëccëg di veiller di ko ñaanal nekk ak moom di souffrir ak moom ñoo nekkoon fii président génn di saafante ak ñoom ay millier de jeunes yi nga xamante ne les guerriers de Ziguinchor ñoom ñoo tenir les barricades ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ni président kenn du la fi jëlee ñoom ñoo ni président fii yow yaay boroom ñoom ñoo ni président yaay suñu yaakaar tous ces jeunes sont là et les autres qui sont dans les autres barricades aju un peu partout à Ziguinchor ceux qui ont permis à Ziguinchor de résister et de rester debout avec ki nga xamante ne moom mooy seen doom ak ki nga xamante ne moo di l'espoir du peuple sénégalais the eagle one the eagle one la tanière du lion ici à Ziguinchor fii nii ci mi ngi noonu la procession des jeunes la procession des soldats de Ziguinchor la procession des enfants dignes de Ziguinchor ñoo ngi noonu di wéy H24 di ñuy wéy pour motiver wu xale yu am jom nekkal fii ak président Ousmane Sonko ñu ni ko yow toogal fi nga toog rek fii kenn du la fi jël si fii yow borom Sénégal yaay borom la jeunesse digne la jeunesse patriotique de Ziguinchor ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi muy ay mag ngeen xamante ne femmes yaa ngi noonu les bonnes dames sont là les dames de Ziguinchor sont là taxaw H24 ñoom itam soutenir président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu ça c'est la marche de la victoire la procession de la victoire déglu leen ambiance bi ça c'est des chansons guerriers écoutez-moi ça l'Afrique fière de ses enfants Ziguinchor a ngi de la Casamance. Ziguinchor patriotique bu Ziguinchor ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ànd ak président Ousmane Sonko. exceptionnel de vivre ces moments historiques ici à Ziguinchor le président Ousmane Sonko génnoon tey saafonte ak xale yi nga xamante ne depuis jours guddi ak bëccëg ñoom ñoo fi nekk. mi ngi noonu Ziguinchor a ngi nii ñu ambiance ak waa Ziguinchor les jeunes des Ziguinchor en triomphe qui se portent, ils se triomphe ici devant le domicile du président Ousmane Sonko. Ziguinchor ngi nii Ziguinchor a ngi nii xale yaa ngi bégee xale yaa ngi bégee xale yaa ngi def procession buntu këru président Ousmane Sonko tey dañoo am bànneex dañoo am bànneex am mbégte gis nga leen ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions suñu maman yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu dellu nañ gérer ji barricades yi dem nañ gérer ji barricades yi parce que xale yu am fula lañ utile ak agréable dellu nañ ci position barricades yi sécuriser périmètre domicile du président Ousmane Sonko. Vous venez de vivre en direct, vous qui nous suivez ici et ailleurs, la procession et la promenade du président Ousmane Sonko, maire de la commune de Ziguinchor, qui est sorti remercier ces dames venues de toute la Casamance, lui prêter soutien venu lui prêter main forte ñëw toog fii ànd ak moom depuis ay fani fan ils sont là elles sont là depuis des jours mais aussi ces jeunes sont là ils sont des milliers des centaines qui tiennent des barricades tout aux alentours euh, de la maison du président Ousmane Sonko mais aussi au-delà toute la commune est gérée actuellement par les jeunes patriotes du Sénégal les jeunes euh, du euh, de la Casamance les jeunes de Ziguinchor les jeunes du Sénégal venus de partout. Ils sont là, ils se viennent de retourner au niveau des barricades. Et de ce côté-là, vous voyez l'ambiance. C'est les bonnes dames de la Casamance. Ces bonnes dames qui ont fait le déplacement. Elles sont là depuis des jours. Elles chantent, elles dansent, elles veillent. Elles veillent sur l'espoir du peuple sénégalais. Elles veillent sur le président Ousmane Sonko. Vous êtes en train de voir ceci, c'est historique. Nous sommes à Ziguinchor, Ziguinchor fi nga xamante ne xale yi wax nañ président Ousmane Sonko fii yow yaa fi moom fii kenn du la fi bund xataatal fii mooy Ziguinchor la digne Ziguinchor bi nga xamante ne dignité la ñu woote buntu këru président Ousmane Sonko ce monde est là ils sont là ils sont venus soutenir le président Ousmane Sonko et le protéger défendre le projet protéger le pros loolu mooy seen devise président du gàdd na léegi léegi euh, ci biir këram waaye xale yaa ngi nii waaye li ngeen di gis nii à tuut la rek ndax xale yaa ngi ci barricade yi xale yaa ngi fépp fi nga xamante ne wër na kër gi euh, à des centaines de mètres à voire 500 même kilomètre tout à l'heure euh, des forces de sécurité dégagé nañu lépp président dem rencontrer ces jeunes là wax leen merci vraiment parce que aussi nitu bu am reconnaissance le président Ousmane Sonko maire de la commune de Ziguinchor euh, tey lii moom moo fi amoon muy la promenade surprise surtout mais itam visite bi nga xamante ne président dem na def ko ak ñi nga xamante ni depuis des jours ñoom ñoo toog di veiller ci moom ñoom ñoo toog di ko jàppale donc c'était tout lépp lu fi mën ci amaat yi ngeen ko amaat waaye comme yéen miin ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni fii nii daanaka endroit bu sacré la film bi waru fee bëri liñ fi wane itam waru fee bëri donc on se donne rendez-vous tout en vous disant comme à chaque fois il faut défendre le projet et protéger le PROS